teel time soo see naa bu mm. eh, eh eh eh eh yow réalisateur lan la mm. bul yàq way bi nii lay def ak yeneen bu buusee ci yaa defar ci new ma la buusee teel matin mm. teel matin soo see teel time ngaa la teel time ci biti teel time <laughs> naa Ngalla BJ ak Mansour yéen ñëpp jërë ngeen eh du ngeen téye caa yéen ñi luy seen problème xam nga dama leen dama leen di siiwal li tax ma jël micro bi xam nga takk naa benn bii la tubaab bi naan micro karawaat bii mooy micro naka HF waaw kay bii dama koo téye parce que bu ngeen moytuwulee yow yow Nabou Cor li nga def ci transition bi soo se def ko ci transition bi dama leen di siiwal. man du xam ngeen ne man du ma nettali waaye lu ma yëg si li may tëgg ci studio bi yëpp bu ngeen ma baalul ah. suturaal ba rek. ma suturaal la. lambaay soo sa yow nag ma suturaal. ñu laay def ci studio bi. Ah. ma lu ma def. ah da ngay nga def da nga ma siiwal la. dama koo xamul bi. yéen nag internet yi yàlla nakkal na leen ba lii xew fii yëpp daanaka lépp mënu leen koo yëg. Hmm. heureusement pour yéen sante leen ko yàlla sunu borom bu ngeen doon yëg lii xew fii lépp. walaay di ngeen xam ne 2A TV gi wax naa leen fii dañu war a def ay ndëpp national fii dañu war a def ndëpp ay assise 2A la ñu war a organiser waat demaat ca bërëb ba fële ca booru géej ga mhm. waxtaanee waat li ñu nekkee li ñu nekkee upp na dafa upp yaa ngi dégg mhm. waaw kay loolu nag tax na vraiment soose mhm. gërëm ñeel na la man mii waaw eh, dañ maa yóbbante gërëm ci yow mu ni internet yi ñu ne xaw ma loo naan ak loo pikiiroo tey nee na waaye boobu baax na. on dirait que tu as mangé du lion. Johnny waaxu laa naan. lion waaw. oo oh, nga ne loo naan. Johnny waaxu. waaw Johnny waaxu. yaa ngi fàttaliku Johnny waaxu dee koy ma ko nag ba di ko mu ngi dugal yéen nag yéen ay gone ngeen man Johnny waaxu moom dëgg-dëgg nga xam Johnny waaxu yow. xamu ko Johnny waaxu. xaaral ma ne xaw ma ko Johnny walker. ah mooy Johnny waaxu moom li mu war kee lan la sax. lan la woon. yaa ngi lay leen. ma nii. jooni wal keer lan la woon sax moom. kooku laa am tey. ah leen de xamal naa. boo ko naanee nii. tu nous as régalé. boo ko naanee da waaxu rek. tu nous as allah ci xam-xam gi vraiment tu as fait notre journée. waaw oh, d'aujourd'hui. Mhm. fu mu nekk nii li ma ciy def xoolal damay ñambas rek waaye sër wi mat na koddaay gi mat na. Mhm. tu war fa kàll macha allah. yal yàlla yokk sax xam-xam sax du ko yàq nag. waaw soxna ma mi ndax dëkk bi nga ni euh, caay ju ñor ji. <laughs> dëkk bi caay bu ñor ji dagg la. Mhm. nga ni foo xëcc rek beneen baa ngay wala ngaa ci suuf yàlla bu barkatu bi xam nga caay bu ñor ba dagg moom boobu caay kenn mënu koo téye maanaam xoolal foo fab rek foo fab yow foo fab rek am na feneen fu bàyyi foo am na foo xam ne ñor ba teewu ko ah dama leen wax rek dëkk bi nii la tëddee. tey damaa sol robe bu am poos oh waaye poos ma nag dërëm nekk ci xanaa nga aj ko rek jaru ko dama doon yow laa doon wax rek ne damaa sa sol tey robe bu am poos pour poos bi waa pour poos am na poos fii dënn waaw am ay poos ci côté waaw loolu oh, yow laa ko doon waxal noonu rek waa kay léegi nag pour émission bi gaaw a jeex il faut ma def revue des titres su ma def revue des titres émission bi du jeex parce que Bamba dama ah, da foo wala. dañ la ko offrir euh, am na ko ma ko message léegi nii. ah nañu euh, voilà. bismillah. moo mhm. moo gâteau internet ngay wax wala gâteau gâteau gâteau. dañ ma ko ngay wax wala gâteau gâteau dëggantaan. Euh, Amar benn joyeux anniversaire à toi gis nga mami dañ ma ko message léegi ne ma mami moom wax dëgg yàlla buy revue hmm. kontaan mbégte gi may am ci moom il faut ma offrir ko gâteau. lan lay gore yaram daw na yax des. Mhm, mosoo xam vox populi. boo bëggee revue bi gaaw da ngay ut chocolat mosoo koo xam. barki seen bamba vox populi ba am soir foofu a jooy man man laa jooy laalu jooy ma kontaanee damay jooy. salaam salaam. bu ñu waxee chocolat damay ému. je suis émuse. barki sëñ Bamba looloo tax fu mu nekk ni xoolal tey laa leen di revue revue bu neex a neex a neex du ma tëb dara waaye kii kan la ah yéen. kan kii. Ahmed Aïdara. ah kii kii kii kii kan kii du Lat Diop. Ahmed Aïdara expulse le Guédiawaye football club de Lat de son terrain waaw.